ak yu ni mel dañ ko stoppé en attendant. waaw c'est bien la précision est de taille. Mhm. bu fekkee ne parce que il faut comme ni ko gars waxee foog affaire yi aussi muy leer sénégalais aussi di comprendre. Mhm. parce que dañoo woote li nga xamante mooy jub ak euh, jubbanti. Mhm, kon ñoom ak jubal. kon ñun lépp dafa di leer si dëkk bi. c'est bien que ñu wax ne. waxuñu ne dañoo arrêté liggéey bi nga xamante ne moo amoon si chantier yi nekkoon ci littoral bi. Mhm. mais li ñu arrêté pour l'instant li ñu suspendre mooy li nga xamante ne mooy demande yi. Mhm. wala mutation yi wala li nga xamante ne mooy ni ñu doon fexee ba joxe euh, li nga xamante mooy kayit yi loolu la ñu arrêté gum c'est bien pour que liggéey bi mën a continuer. et euh, ñi ngi si li nga xamante ne mooy gouvernement wala euh, euh, pouvoir kii nga xamante mooy son excellence Bassirou Diomaye Faye mhm. on a constaté que temps yëpp nii ba léegi nii wax dëgg yàlla président Lamine Gueye pour parler des sports xam nga li nga xamante ne mooy sport dafa am fële si France si Paris Saint-Germain dafa am li nga xam mooy remontada mais dañoo gis ne bi Diomaye Faye ñëwee ba léegi moom mi ngi def la démontada mi ngi démonté nang-nang di démonté <laughs> yàlla nag na ak ak li nga xamante ne mooy euh, xaw ma balem boobu mu yoroon mm-hmm. euh, di faxas mi ngi démonté nang-nang parce que gis ngeen euh, li nga xamante ne mooy yenn postes yi comme ñoom ni ñu koy waxee ñi ngi démonté gars yi fa nekk di teg yenn gars j'espère que aussi que démonté boobu mi ngi koy ànd ak xel mi ngi ànd ak intelligence parce que bala moo def erreur souci bi Ndeye Fatou am man moom laa am mooy pourquoi Pierre Goudiaby bi moo ko war a wax malgré que nag ñun ñëpp bëgg nañ mu leer te wax dëgg yàlla daa si ñëw bëgg nañ mu leer nañ mais pour pourquoi Pierre Goudiaby Atepa moom moo war a wax si li nga xamante ne mooy li jëm si wàllum euh, littoral bi. peut-être journaliste bi ko posé question mu tontu ko ci. mais mais mais parce que bu ko waxee. parce que nekkul li nga xamante ne mooy lu hasard. parce que bu ko waxee Pierre Goudiaby Atepa. Mhm. dafa am lu bëree bëri yoo xamante ne moom dafa bokk si wàllum littoral bi. lu luñ koy déggal ak loo xamante ne sénégalais yu bëri teg nañ seen bët. bu ñu fàttali ne ay jëmi jamono si ginnaaw Pierre Goudiaby Atepa bii moo fi amoon coow ak Aby Ndour si wàllum li nga xamante ne mooy wàllum ay euh, terrain wala li nga xam mooy wàllum place. si littoral bi. mais aussi Pierre Goudiaby Atepa boobu noonu aussi buy wax aussi si wàllum suuf bi. ana boobu si li nga xamante ne mooy porte-parole du gouvernement parce que bu ëllëgatee ñun bu ñu waree topp. dañu war topp ki nga xamante ne mooy kañu jox benn post boo xamante ne yow réew mi dañ laa joxoon benn post nga jiite ko mais Pierre Goudiaby Atepa a ma connaissance amagul benn post bu ko si réewu Sénégal dénk donc moom sa voix n'est pas encore autorisée pour que mu wax ak aisance nu mu ko neexee mais si kaw loolu aussi où est le ministre de l'urbanisme monsieur euh, Balla Fofana Moussa Balla na et puis encore une fois bu ñuy wax si wàllum littoral bi bu ñu yem si li nga xamante ne seulement mooy littoral bi nekk mais du Dakar Njaay gi kese littoral bi bokk na si dakaar ba Cap Skirring ndey waat mi koy sànq bokk na aussi si li nga xam mooy Dakar ba Saint-Louis mu yooyu yëpp dañ ko war di leeral bu ñu jëlee si loolu bu ñu jëlee si loolu aussi nañu woo ñi nga xamante ne ñoom ñoo xam wàllum suuf gi ñu saytu yu bëri parce que réewu Sénégal dañoo soxla yu bëree bëri ñu xam ko malgré que nag dañoo nekk si yoonu jubbanti waa léegi dafa am yoo xamante ne Sénégal moo ko moom moo xamante ne ay ay bien wu Sénégal ay Sénégal moom moom li nga xamante ne mooy bànqaas yooyu euh, bërëb yooyu dañoo war a xam nan lañu defee attribution yi dañoo war a xam nan lañu fexe ba jébbal li nga xamante ne mooy wàllum foncier bi boo jëlee par exemple son Sénégal moo ko moom ay dëpp yi nga xam ne mooy ay jamonoy Abdoulaye Wade ba tey ñi ngi wax wàllum son mais hôtel Azalaï aussi Sénégal moo ko moom dëpp yi li nga xamante ne mooy peut-être que Euh, ki nga xamante ne mooy bi fi Abdoulaye Wade nekk ba Radisson chaîne d'hôtel international la. tu as vu tu as vu. du Sénégal voilà léegi voilà léegi parce que am na Bamako am na si dama bëggoon ne attribution yooyu. di mhm. dañ ci war a mën a xam lu leer parce que. transparence la ñu wootee jubal ak jubbante la ñu wootee mhm. euh, gis nañ ni peut-être que hôtel Azalaï bii nii euh, lan moo gën a andi li nga xamante ne tey mooy wàllum bës bi mu am parce que dañoo gis ne bi Ousmane Sonko ak président Diomaye Faye falo ba léegi on ne parle que de hôtel Azalaï mais c'est bien que ñu xam. parce que nan la ko Sénégal moomee consommer local la aussi tamit parce que doomu Sénégal doomu réew mi ñoo moom boobu hôtel eh, eh, que parce que dañoo woote jubal rek mhm. dañoo bëgg aussi Sénégal yëpp xam ne naxee ko fii ñu jëm a fexe ba andi papier yi sénégalais moo ko moom oui bien sûr ah depuis jamonoy euh, Abdoulaye Wade la fi nekkoon ba léegi est ce que Sénégal te malien instant euh, mais malien ma posé débat bi si table bi. moo tax ma ne la loolu posé débat parce ko bokk na. Ah, c'est important que parce que le plus souvent. dañ doon wax ne c'est mais loolu. Euh, boobu hôtel. mais loolu même bu amee même bu nekkee malien moo ko moom day faaf. Mhm. mais mi ngi si suufu Ndakaaru Ndiaye. Mhm. mi ngi si réewu Sénégal. Mhm. yoon la que ñu génne papier rek Sénégalais bu lay xam. loolu om peut on peut le voir parce que dafa am yoo xamante ne le citoyen Sénégal a le droit à l' information. sànq nii gis nga bi Pierre Goudiaby Atepa wax ñun ñëpp ñoo bëggoon a xam information bi. Hmm. kon on a le de savoir tout ce qui se passe. Hmm. boo jëlee li nga xamante ne mooy wàllum li wàllum filao yi. léegi tey filao yi nga xamante ne mooy euh, li nekk si Dakar gépp demal ba Guédiawaye am na fi benn association boo xamante ne ñu ngi koy tuddee l' association euh, pour la justice environnementale na leen woo si débat bi ñu laaj leen lan mooy jafe li nga xamante ne mooy littoral bi boo jëlee li nga xamante ne aussi mooy si wàllum euh, foncier yooyu demal ba nga xamante ne mooy peut-être que demal si ay petit mbaaw ko wax nga ko sànq demal ba nga xamante ne mooy peut-être que côté gàddaay demal ba nga xamante ne mooy peut-être que boo ñëwee ba si kaw a kaw yooyu yëpp noonu dafa am ay problème suuf yoo xamante ne yàgg naa am yoo xamante ne ba léegi nii yenn saay mhm. sénégale bi day jaayante dem jënd ji suuf mhm. ñëw joxe ëllëg ñu xëy xëy nangu ko mhm. ne ko tey suuf boobu nga am amoo li nga xamante ne mooy peut-être foncier amoo ay papier kan mooy joxe papier yi si kaw papier yooyu si kaw papier yooyu dafa am loo xam dañ ko war a xam mooy tey ñi nga xamante ne tey ñi ngi jéem a arrêté seen yi nga xamante ne mooy peut-être seen Euh, attribution ak seen demande mhm. mais comme ni ko Ndeye Fatou waxee ku si xas ba am tey foncier ça ça n'arrange pas le Sénégal enjeu état du Sénégal parce que tey ku si xas ba am foncier ñu xëy xëy te arrêté li nga xamante ne mooy tey say demande wala arrêté li nga xam ne mooy say travaux mais boo ko boo ko yóbbee si yoon boo ko yóbbee si yoon état Sénégal peut-être que ko yoon daanee moom mooy obligé di fay ay dommages ak intérêt est-ce que loolu noonu dina enjeu état Sénégal est-ce que loolu noonu aussi war nañu a wax mooy cest dafa soxla gars yi encadré ko dafa soxla gars yi dimbali ko bañ koo dugal si yàkkamti wala bañ koo dugal si précipitation bala moo def ay erreur yoo xamante ne après li si am mooy nga gis benn citoyen buy topp état Sénégal si lii wala nga gis nga xamante ne mooy peut-être benn bailleur buy topp état Sénégal si lii pour man loolu noonu nag laajul ngi ñu rek bëgg léegi léegi kut ko kut comme ni ñu ko waxee ñoom sax yenn saa yi boo andee benn critique ñu ne dafa teel loolu aussi pour man yenn décision yi aussi laaj na que ñu toog xaar tuuti parce que pour man jàpp naa ne Diomaye fi mu toll nii si li nga xamante mooy gouvernement bi mooy a jàng li nga xamante mooy réew mi na andi ay dégâts si ëpp solo mooy peut-être ñu xaar ba si jëmmi jamono pour gën a xam yu bëri parce que aussi yu bëri war nañ ko mën a leeral parce que wax nga sànq si côté li nga xamante mooy wàllum domaine parce que tey dañoo nekk si gouvernement boo xamante ne si nekk ñu bëri ay experts en impôts et domaine wàllum domaine boobu ñuy wax mais am na yoo xamante war nañu ko mën a leeral attribution des terrains li nga xamante mooy aussi coow li nga xamante amoon na fi on se rappelle que ay coow yu euh, ay maires yoo xamante ñu ko doon tudd donc yooyu noonu pour man nañ ko teg si kaw table bi aux yeux et aux yeux mmh. mais gars yi li ñuy def ni ñooñu ko gën a xam seen liggéey la ils sax xam nañ processus bi xam nañ les conditions d'acquisition de terre xam nañ c'est-à-dire terme terme technique yi ñu xamul. ñoom xam nañ ko parce que des professionnels. Mm-hmm. que ça soit le président Diomaye Faye. ou le premier ministre Ousmane Sonko. Mm-hmm. ou même d'autres ministres. yoo xam ne vocation boobu la ñu am le ministre des finances. Euh, le le yam na yenn directeurs yoo xam ne donc y a beaucoup de. waaw léegi nag léegi nag léegi nag waaw waaw léegi bu jaar yoon ak bu jaar yoon. xam nañ waaw si si moo tax ma ne la. Uh-huh. affaire bi daal na bañ a am parparloo. merci lépp waaw waaw léegi nag waaw léegi léegi loo xam ne léegi xam nañ ko siiwal léegi nag léegi nag point bi nga wax nii léegi point bi nga wax nii point bi nga wax nii aussi point bi nga wax nii aussi mm-hmm. dafa am ñetti baat yoo xamante ne réewu Sénégal président Lamine Gueye fa la bëgg a doxee ñetti baat wax naa la ko nee naa la jubal jubbanti ak jubal xaw ma nañu ko waxee ñoom jub jubal jubal jubbanti léegi nag dama ne bu ñuy wax waxi aussi que ay audit foncier bu ñuy wax li nga xamante aussi mooy suspension des travaux ak tout ça dafay laaj benn délimitation kañ lañ bëgg a commencer def audit bi ban jamono ndax dañ koy commencer. si pour le moment ils de la ñuy def lisons lisons la note de service. Uh-huh. si on note si on de service dama bëgg a wax ne. Uh-huh. peut-être que buñ koy jéem ubbi. dañ ko ubbi pour lépp leer. Uh-huh. dans la légalité et dans l'équilibre. mais bu ñu jël benn date par exemple par exemple tey bu ñu jëlee li nga xamante mooy date Mm-hmm. ah mais mais problème foncier bi. commencé wul deux mille vingt. am na fi bien avant deux mille vingt. léegi loolu noonu aussi est-ce que duñ ko teg ci kanamu Sénégalais yi ñu xam yooyu yëpp dañ ko war a càmbar. loolu foofu laa waxee mais bu ñu jël benn date ne fii la ñu commencé bàyyi date yële. c'est important c'est important c'est comme une amnistie foncière. merci beaucoup Ndeye Fatou euh, même le président Macky Sall. toog na fii benn journée. li muy jot li ëpp ci ay plainte ci foncier lañu. c'est une bombe. loolu ñëpp xam nañ ne c'est c'est am na problème ci foncier bi maintenant euh, bu fekkee ni ñoom dañoo jël la décision d'aller auditer wala de de d'éclaircir les choses mën nañ ko def mais que ça soit dans dans vraiment les règles mu bañ a am. benn par parlo et c'est important dóor doom làkk doom loolu bokk na ci li nga xamante ne peut-être moo sonaloon nguur gi je pense bien que ne ne loolu war na nekk seen priorité mu bañ a nekk ku ma am ndey ku ma amul ndey ñu mën ko def de façon très transparente comme ni ko rek euh, président Lamine Gueye waxee parce que domaine suuf Ndeye faatu nekk na loo xamante ne ne dafa bëri coow ci Sénégal même ci rapport yi ñu gis euh, jugee ci OFNAC ñu bëri ci ay communes maires toxoñ baaraamu ma jëm eh, ci wàllu suuf boobu eh, et c'est bien d'ailleurs li nga ma doon li nga doon wax léegi ci wàllu wàllub hôtel Azalaï mm-hmm. mu mel ni euh, Mossadegh Bali mm-hmm. moom mooy fondateur président directeur bi comme ni mu ko waxee moom moom moom eh, hôtel Azalaï mm-hmm. am na Bénin am na Mali am na fi nga xamante ne moom moo di Côte d'Ivoire et c'est important voilà c'est un Malien non c'est pas un Sénégalais c'est un Malien merci beaucoup à un confrère de Seneweb qui nous a envoyé ça il de suivre Omzito merci beaucoup euh, mais du moom kese c'est pas un malien parce que mm-hmm. au moins un malien ce sont nos voisins d'à côté mm-hmm. mais ci yeneen hôtel yi ce sont des français des libanais et mm-hmm. d'autres nationalités yaakaar naa yu ñu gën a sori c'est pour dire euh, dans le tourisme wala l'investissement hôtelier sénégalais yi amuñ ci wàll bu rëy te loolu aussi correction lañ ci war a indi parce que li nga xam ne lañ fay liggéey loolu perte la ci ñun ndax ñooñee li ñuy amassé xëy na